te tey jii tey tey tey su ma gisoon gaal tey tey dama si yéeg dem. gis nga tey jii laa gën a dugg billahi wóor na wóor na yàlla tey jii ba ma gisoon gaaw gi dem dama si yéeg amul dee ak loolu dama koy bàyyi ak suñu borom. jërë ngeen jëf mbokk yi image yu yi image daw yaram yi image yi nga xamante ni dafay wane xol bu jeex moo leen di jox tey seen émission décryptage ni nga koy defee saa su nekk waaye tey nag mu nekk mbir bu spécial. ndax Sénégal fan yëpp ñu ngi dégg mbëkk mi ay ndaw yoo xamante ni Sénégal gii lañ juddoo fii lañu màggee waaye bëgg tëral seen wajur tax ñu jël gaal gi dem Espagne ci ñoo xamante ni yenn saa duñu àgg mbokk yi bu ngeen déggee kàddu yi nii nga xam ni ñii seen xol dafa jeex bu ngeen diggee kàddu gi ñii nii nga xam ni ñii am nañu leen met seen seen biir xol waaye mënuñu koo wax ndax koo xamante ni nee na. man su ma amoon occasion dem damay dem nga xam ni kii amatul yaakaar Sénégal ci réew moo xamante ni lu ne mënoon na fee neex ndax ku leen xam ñoom xam leen ci napp ku leen xam ñoom xam leen ci xëy yéeg gaal dem biir géej napp jën ñëw jaayaat ngir mën a yóbbu ci seen askan waaye nag yaakaar bu tas tax ñàkk a xamante foo jëm tax képp kenn ci ñoom nekkat man pare naa pour dem dugg gaal ngir mën a dem Espagne mbokk yi ñii ku leen gis xam ni am na ay mbir yoo xamante ni tegu na seen kaw ay père de famille lañu ay soutien de famille lañu ci ñoo xamante ni mënuñoo toog gis seen wajur am soxla te duñ ko faj ci ñoo xamante ni mënuñoo toog gis seen rakk war a jàng te fay luñ leen ci ñoo xamante ni mënuñoo toog gis seen ay morom di tabaxal seen yaay kër di yóbbu seen i yaay màkka te ñoom defuñu ko kàddu yooyee nag. mooy résumé kàddu nakar yi nii ndax koo xamante ni xam nga ni géej am na ay risque ndax ni ko Olof Njaay di waxee naan géej amul bànkaas boo xasee ba dem bu jéeye amee rek jéeye am na lu ñu mën mën mën napp diggu géej yàlla rek moo rek mën a sauver waaye nañ ñu gis ni que ñoom ñii pare nañ pour joxe seen bakkan ngir lan dem tukki ci tukki goo xamante ni sax xamoo la nga fay fekk ndax réew jàmbur itam boo fay dugg am na noo fay duggee waaye li ñuy jàngat ci ñaari wax yi moo di ay nit lañ yoo xam ne tey jii kat bëgg nañu defal seen seeni jegeñaale waaye amuñu ko ndax ku xam napp xam dem na fi biir géej kon itam li ñuy tënk ci wax ci daal moo di dañoo nekk ci secteur boo xam ne tey jii kat doxul ni mu war a doxee ndax fii ku nekk booy liggéey dangay ñaan yàlla di ki tedd da ñaan yàlla am ki loo réalisé ba ëllëg ci biir kat ñu bëri mën cee dugg. waaye nga nekk ci benn secteur boo xam te ne da nga koy liggéey doo am loo la nga bëgg pour teral say waajur itam metti na kon jàngat bi ñu def daal moo di ñoom ñii wax lii nii dañoo sonn ñoom ñii wax lii nii dañoo bëgg teral seen yey seen waajur waaye amuñu ñoom ñii wax lii nii bëgg nañ toppatoo seen njaboot di leen faj di leen dundal waaye amuñu kon donc leen rek moo fi sës moo di jël gaal gi daal di aw biir géej dem tukki bu ñu àggee xayrun bu ñu àggul itam ñu xam ne ñoom li ñu bëggoon det moo di dem teral seen wajur ñu dem ci deuxième élément bi. gaal goo xamante ni nii yëpp na ay trois cent personnes wala trois cent et quelques loolu dafa ëpp si gaal yi ndax bu boobaa nit ñi duñ mën a am espace boo xam ne dañ koy toogee quoi ndax gars yi war ngaa war ngaa mën a toog boo bëggee def de déplacement ak yooyu te yoon wi dafa sori dañ koy daw ay neuf jours ba huit jours sept jours xam nga kon gars yi da nga koy suur tamit nit ñi am espace boo xam ne dinañ fa mën a tëdd wala ñuy toog ndax si gaa gi lañuy ñuy toggee si lañuy def suñu lépp. mbokk yi dégg nga ni ko waxee ñetti téeméeri doomu aadama ci benn gaal goo xamante ni yaatuwul ci gaal goo xamante ni espace bi dafa tënku ci gaal goo xamante ni amaana sax boo amee foo toog santal ci gaal goo xamante ni mu nekkee dox yenn jéego yi foofee la ñetti téeméeri nit di dajaloo dem ngir wuti seen wërsëg waaye nag juróom-ñaari fan jàpp juróom-ñett fan mbaalu ko ëpp ci biir géej foo xamante ni doo gis ay nit foo xamante ni ndox rek moo lay wër amaana sax ñi lay yóbbu mën nañ dem ba digg géej daal di riir condition yooyu noonu la ña nga xamante ni dañuy bëgg a tukki Espagne walla feneen loole la ñuy jànkonteel waaye mbokk yi ku ne xam na ni géej risque la ci koo xamante ni xamoo foo jëm ndax mën nga dem ba digg géej ngelaw am ñu sàndi la mën nga dem ba digg géej bu dee yoroo li nga xamante ni maanaam moom moo di busol nga daal di réer waaye nag est-ce que jar na dugg foo xamante ni tey jii leer na la ni sa bakkan xaj na ci waaye nag loolu lépp nag li ñu ci jàngat moo di. comme ni nga ko waxee sànq mooy koo xam ne tey jii kat dund ak dee la yemale ndax boo nekkee foo xam ne tey jii kat ñu ngi la yaakaari mbir te amoo ko solution bi leen dong la moo di nga def benn mbir soit nga réussir ko wala nga ñàkk réussir waaye mbokk yi est-ce que juróom est-ce que ñetti téeméeri nit ci benn maanaam gaal foofee du neex ci ay nit yoo xamante ni xamante wuñu ci ay nit yoo xamante ni kenn xamul sa morom. foo xamante ni yërmande dafa am ndax yenn saa yi di nga gis ci digg géej nit feebar ba sonn wala sax amaana bu deewee ñu jël ko daal di koy tëmbal voyage bi daal di continuer kon foofee itam yu bëree bëri dafay am ay histoire yu triste dafay am ay mbir yu doy waar dafay am loole nag leen dong moo ko waral mooy koo xamante ni bëgg na defal juróom waaye amu ko wala koo xamante ni tey jii bëgg na tekki ngir bokk ci ñuy tabax dëkk bi. waaye amu ko loolee waral mu gestu xool nga kat dem ret moo fu sës dugg géej foo xamante ni kenn du la wallu foo xamante ni boo feebaree kenn la jox garab foo xam ne tey jii kat ku nekk sa bopp sa morom doo ko tal sa bopp rek ngay tal yooyee nekk mbir yoo xamante ni tax na ba sénégalais yi bëree bëri jamono bi ñu ngi woon ginnaaw seen réew dal di dem foo xamante ni wóor leen ba xam dinañ fa àgg. ñooñu. mën nañ àgg mën nañ bañ a àgg ndaxte comme bagage yi ñu yor mën na jaxasoo si géej gi ñoom ñu tiit xamatuñ fu ñu jëm man tamit mën nañ nekk tamit at ñu leen di sonal ndaxte tamit comme clandestin dafa bari lu si lax lu si raxasu dafa am tamit ñoo xam ne ay nit guddi dañ siy bokk ay rab ñoo xam ne dañuy feeñ si géej gi da ngay dem ba foofu ànd ak nit mu dem ba foofu soppeeku doon leneen waaw ah, mais gaal yooyu tamit am nañ mille chance àgg am nañ mille chance tamit am problème si géej diig lenn rek mooy problème bi mooy ñi ñi mool yoon yóbbu gaal gi dem ba xamatuñ fu nu jëm jaaxle ok sonn loof amatuñ doole gaal gi di faaya di dem machine yi baaxatul doxatul comme loolu mën na leen a sànq. ni mu ko waxee dëgg la digg géej yenn saay yi nit daal di jommi yenn saa nga gis loo xamante ni xamoo ko yenn saa nga dem ba digg géej gis fa ay xeetu euh, doomu aadama yoo xam xamante ni mosoo leen gis kon bu boobaa jommi daf lay yomb bu boobaa. mën nga am dépression yéen saay sax nit jékki-jékki tiit daal di tëmbal bu am ci biir géej waaye nag ñu ñëw ëmp ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen di yóbbu ndax itam c'est encourageant nga ànd ak koo xamante ni mën na dem ba ci biir géej daal di réer est-ce que am alal yo na nga ànd ak koo xamante ni wóor na leen que mën na dem ba ci biir géej daal di perdre position ngir lan alalu àdduna kon donc jamono bi ñoo ngi gis au Sénégal jeunes yu bëree bëri ñu ngi joxe seen bakkan jeunes yu bëree bëri ñu ngi tànte jeunes yu bëree bëri ñoo ngi jéem a def le tout pour réussir ndax lan mënuñu ko am fii ndax koo xamante ni boo xëyee sa yaay moo la jox nga lekk sa yaay moo la jox nga naan et pendant ce temps yaa ngi say xarit di tekki bu dee amatoo foo jëm lenn rek moo moo fi sas mooy xool fa nga jëm pour amee fa waaye tamit nag boobu ba léegi ñu ngi naan ay nit ñu ngi dee est-ce que nguur gi mu ngi ci jël ay dogal ngir fexe ba dimbali askanu Sénégal ndax nag la plupart ñoom boo xoolee ay nappkat lañu mais nappkat yooyu lan moo tax ñu bëgg fee bàyyi activité bi daal di dem kon donc dañuy jàpp ni kon am na loo xamante ni itam dafa laxasu ci suuf ndax am na éléments yu ñëw ci kanam di ngeen dikk ñu wax leen ni géej gi dafa am ñeneen nit yoo xamante ni bokkuñ Sénégal ñoo ñëw daal di jël suñuy maanaam koom di ko yóbbu. loolu nag ndax nguuru Sénégal moo leen ko jox ndigal c'est arrévoir revoir waaye daal lu ñu ci mën a jàpp daal moo di ànd ak koo xamante ni tey jii kat mën ngeen dem ba ci biir géej ngeen réer ndax jar na joxe sa bakkan ndax nag nit ku nekk nit la mën nga dem ba ci biir géej nga am dépression mën nga dem ba ci biir géej nga perdre contrôle mën nga dem ba ci biir géej bato bu yàqu mën nañ dem ba ci biir géej dootuñ xam ne fu ñu jëm ndax lekk nag. boo xoolee ñoom ñi naan 7 jours wala 8 jours rek la ñu am ci yoon bi mën nañ dem ba quelques jours seen lekk jeex te nag ku lekkul naanoo bu yàggee kat da ngay loof te ku loof bu yàggee di nga feebar te ku feebar itam bu yàggee maladie taali mën nga cee génn àdduna nga génn àdduna foo xam te ne day kat say mbokk duñ la gis kenn du la defar kenn du la jullee kenn du la suul yooyu nag mbokk yi alal jaru ko waaye tamit nag ñu waxaat encore une fois ay nit yoo xamante ni tey kat. bëgg a teral seeni waajur moo tax ñu def lii nii waaye kon mbokk yi nguur gi lan lay xaar pour jël ay dogal lan lay xaar pour jël ay doxalin yoo xam ne tey jii kat dina encouragé suñu ay doom mën a des biir Sénégal ngir daal di liggéey ñu ñëw ci beneen élément bi. bu gisee gars yi di forcer période bi looloo koy waral bu ñu demee ba côté mu commencé sedd ngelaw li commencé am gars yi dootoo déggati ko demati. est ce que xam mi li muy bëri bari mool yi buñ buñ mbëkkiwul mbëkki du am mool yi buñ mbëkkiwul mbëkki du am. te jàpp naa ne maanaam mbëkk mi li ko gën a waral mooy coono ak mool yi imaginel nit ku liggéey at boo amee doom mënoo kaa ngénte boo bëggee takk jabar dañ lay cotiser ay cinq mille cinq mille ñooñu buñ déggee ne nit mu nga ca am réew mën a am weer huit cent mille wala weer sept cent mille dañuy teg seen bakkeni pour dem mool mi leen di yóbbu tey jii moom la muy la muy daj fii moog yàlla ka see xam amaan day am soxla du gis ku ka ka fajal léegi man tey jii nan naka ngay ñëwee si man ne ma sa waay man kat damaa bëgg ku ma yóbbul gaal gi Espagne boo ma ko yóbbulee naa la jox 500000 wala naa la jox 1 million yow bàyyi sa kër dama koy jël dama koy jël dem wacc xaalis boobu sama kër bu ma demee jéem a jéem a liggéey lu ma lu ma investir fii. di liggéey te doo gis loo liggéey di xëy di tàggu say waa kër nga leen liggéey gi naa alors que yow bu weer deewee. gaz sax mënoo ko jënd sa waa kër loole la ñuy di jënd ndax boo xoolee ku ne la na da ngay liggéey te moom moomoo matériel bi kenn ki ne man ku ma joxoon cinq cent mille francs wala un million sañ naa yóbbu gaal xam nga ni kooku yaakaaram tas na ci réew mi xam nga ni kooku amatul fenn fu mu jëm pour dund xam nga ni kooku amatul fenn fu mu jëm ngir maanaam mën a réglé ay problème am mu nekk koo xamante ni activité am yëpp wala ñoom ñëpp seen ay activité ci géej lañ ko xamee waa léegi lan moo tax ñooñu buñ leen ko joxee ñu def ko te xam nañ ni que ñoom seen bakkan xaj na ci xam nañ ni que ñoom mën nañ dem ba biir géej ñu réer xam nañ ni que ñoom mën nañ dem ba biir géej daal di dee kon loolu lépp li muy wane daal moo di ñoo xamante ni tout le temps li ñuy def bëggaduñ ci dara ndax amatuñ ci yaakaar ndax nag fii ku ci nekk boo sañoon bu weer deewee lépp luy soxla. lépp luy bëgg-bëgg lépp luy am-am nga am ko waaye nag ngay xëy di liggéey ñu xam ni que yaa ngi liggéey te amoo kon loolee itam am na problème fan la mbir mi tàgga témbee loolu itam war ko gëstu ci ñoo xamante ni yor nañ seen gaal ci ñoo xamante ni tey jii kat chaque jour mënoo dem nappi ndax sax am na ku ne ci bi bu ñu daan dem nappi à partir de léegi nañ dem lu toll ci cent kilomètres ngir am jën kon loolu métti na te Sénégal nag. géejëm gi yaakaar naa pour doomi Sénégal la Sénégal géejëm gi ay doomam ñoo ci war a nappee fan yii passé sax gisoon nañu ay problème yoo xamante ne ji kat nekkoon na ci wàllum délimitation maanaam ku ci nekk fan nga war a nappee yooyu yëpp itam nekk jafe-jafe yoo xamante ne ji kat nemmeeku nañ ko ci wàllum napp gi ba tax ñu bëri ci ñoom bu ñu toogee amatuñu yaakaar walla xamatuñ fu ñu jëm daal di dugg ci gaal dem dañuy jékki-jékki rek. ñu wax seen mbokk ne kat diw duggoon na ci gaal bi des na fa loolu lañ ci am wala sax yéen saa ngi gis ñoom tey jii kat ñoom dong la seen wajur amoon ñu daal di dem des fa waaye tamit est-ce que parent yi itam ñu ngi waxtaan ak njaboot gi ndax souvent nit dina toog du am waaye am na nu ñu koy maanaam conscientiser kooku du bëgg def dara lu mu mënul. waaye yenn saa yi da nga nekk ci famille yoo xam ne tey bu ñu la sasee loo mënul wala ñu naa la kat diw mu ngi defal nangam waa këram lan moo tax defoo ko te ñaar yéen a bokk liggéey bu yàggee nga am lu la metti kon donc est-ce que jotul au Sénégal itam yenn pression sociale yi ñu jëm ko xoolaat bu baax a baax ndax Sénégal dañuy gis ni que dafa am lu bëree bëri yoo xam te ne maanaam ñoo ngi ko fii gis te du farata yenn xew yi lu mel ni ay ngénte lu mel ni ay mariage yu mel ni yeneen ak yeneen ñoom dañu tey ji kat du te nit da koy liggéey ba sonn jeexewaat ci loolu. te la plupart nag ña koy joxe buñ ko joxee dañuy recommencer à zéro pour mën a amaat leneen kon nag est-ce que jotu itam Sénégal société bi xoolaat naka la ñuy jàppalantee góor ñi ñu teggil leen yenn soxla yi waaye itam ñu mën a def loo xamante ji kat dinañ ko mën mooy dundal seen njaboot fexe ba am seen kër ba ëllëg ci biir seen doom du ñu tumuranke waaye ñu fi gis ñëpp boo xoolee dañoo xamatul lu ñuy def ndax sas mu ngi seen kaw te mënuñu ko faj looloo tax itam ñoom ku leen laaj mil francs wala 1 million ñu daal di yobbu ay doomu adama yoo xamante ni wóor na leen ni que seen bakkan mën na faa des. fekkee da ngay dem si gaal di fa am benn ndar kon li naan benn nar daanaka yow boo yoree njaboot dootuloo la matal matal dara li lay may chance moo nga yor sa matériel bopp. géej gi moom métti méttiwaay boo xamante ne nii xam nga moo tax booy di daa jaayante di dem nii quoi billaahi mais gi bu neexoon da ngay toog fii jariñ sa njaboot. sunu géej gi moo neexatul bu doonte mës naa neex léegi neexatul. Kofountine di jàppee mënatoo am yabay ndax chinois yi bota chinois yi bàyyeetoon dara mbaal dri suuf lan ko xamee woon xam naa yéen doo leen comprendre mbaal dri waaye mool yi xam nañ luy mbaal dri léegi mbaal dri léegi mbaal kaw ndox ngay gis jay yabay yóos tàllaar lépp la ñuy diri bàyyiwun dara chinois yi bàyyiwun dara Sénégal bu gisee géej gi demee nii ba mool yi dem chinois yi ñoo rey géej gi ndaxte boote yi ñoo ngi naan suñu géej gi noo xam ne nii ñun ndaxte boo daan dem dix kilomètres pour jàpp jën léegi di nga dem cent kilomètres pour nga am jën te xamuñu lu dul géej yaakaaruñu lu dul géej bagage yi géej yi seer na. géej gi am na naa xam ne buñ ko organiser woon ñun mool yëpp ku ne mën na see gis sa bopp ba nit bu jóge woon fee ne la jaay ma sa gaal gi dix millions pour ma tëgg ko mbëkki doo ko jaay. condition de travail yu métti métti ndaxte ji kat di yéeg ci gaal di nappi fekk yow moomoo gaal bi kon donc boo liggéey ba ñëw. la nga liggéey yépp daanaka boroom gaal bi moom moo ci bénéficié wu ndax koo xamante ni tey jii kat itam moom moo def financement gaalam plus de 10 millions liggéeyam du yombe noonu day bëgg a tut ko ku itam amaat la nga xamante ni moom la defoon ci gaal bi kon donc itam donte mool bi moom moo dem tëmb géej li mu ci amaat du bëri. waaye itam ñu gis ni que Sénégal am na géej waaye ñeneen ñi ko jëriñoo ni ma ko waxee sànq. lan moo tax ay chinois wala yeneen i xeet di ñëw suñu réew di jël suñu ay euh, euh, jën di ko yóbbu pendant temps Sénégal am géej ñu bëri keccax la ñuy lekk ñu bëri duñu lekk jën yoo xam ne tey jii war nañ ko mën a lekk ci réew moo xamante ni yaa moom sa géej est-ce que dafa am ay contrat yoo xam ne tey jii kat dafa lié réewum Sénégal ak yeneen réew ba tax tey ji ndaw yi gis loolu daal di ñàkk pexe bay sànku ci géej gi kon donc. est-ce que kon jotul nguuru Sénégal daal di fexe ba arrêté bépp contrat boo xam te ne kat dina xañ doomu Sénégal liggéey ci réew mi ngir mën a teral ndax nag ay jàmbur ñoo ñëw ci réew mi liggéey yóbbu seen réew ngir teral seen ay wujur dañuy naan bala ngaa laax jaay nga laax lekk ba pare kon donc ñoo ngi ñaax ña nga xamante ni itam ñoom ñoo ŋànk nguur gi daal di bàyyi xel doomu Sénégal ndax fan yii ni gën gaa néew ay lo lópp téeméer doomu aadama mba mbaa li ko jege ñàkk nañ seen bakkan lu mat juróomi téeméer réer nañ ci géej gi li ko waral moo di dem wuti li ko waral moo di toog Sénégal bëgg a liggéey mënoo liggéey kon ñu ngi ñaax nguur gi rek ñu gën a bàyyiwaat xel doomu Sénégal ki jamono bii nga xamante ni ndaw yu bëri ñu ngi sànku jël gaal bëgg a dem Espagne bëgg a tekki waaye nag seen bakkan des fa li moo nekkoon tey seen émission décryptage ànd kook seen site bi di Info merci beaucoup à ci technique bi rendez ci beneen numéro merci beaucoup